li ko dese il doit s'inscrire dans ce processus la parce que pour man am na lu tàmbalee assemblée effectivement nga xam ne ci c'est la conséquence xëy na du dialogue mooy l'assouplissement effectivement mhm. par rapport au parrainage le fait que effectivement ñu teg kaawu Khalifa ak kaawu Karim Wade sur la table mais le président serait beaucoup plus élégant et partirait également de ma de la manière la plus belle bu favoriser la participation effectivement bu ñu créer parce que pour man qui peut le plus peut le moins parce que créer les conditions xam nga souvent je je le dis ça plaît ça plaît pas à certains favoriser ou faciliter la candidature de Ousmane Sonko la participation mhm. parce que fenn rek laa ko teg en termes d'animation de l'espace politique de manière avec beaucoup d'opposition li tax sax waxuma vous n'êtes les autres ne sont pas des opposants mais il a il a essentiellement joué un rôle très important dans l'opposition mmh. en termes de mobilisation en mm-hmm. termes de taxawaay en termes de non et cetera et cetera mm-hmm. ba ñu am un certain type de résultat par rapport ak taxawaayam de toute façon je pense que le parti PASTEF a joué un rôle important dans la mobilisation des populations, dans la mobilisation des jeunes à travers énormément dévénement et c'est important pour la respiration démocratique. léegi nag fi ñu ci toll mooy parti bu mel noonu ak dayo bi mu am ak aussi ñi nga xamante ne gëm nañ ko parti bu mel noonu bu bokkul ci élection yi élection yi du rafet élection yi dafa war a rafet on n'entend pas également les autres partis d'opposition parler de manière sincère de la participation de Ousmane Sonko et il y a un am na benn jamono ils étaient également avec lui pour mener avec lui des combats mais aujourd'hui on semble anté entériner entériner parce que même ça se sent dans les débats on, on semble entériner l'invalidation de la can candidature de Ousmane Sonko Et pour moi, si on est des amoureux de la démocratie, si on est des passionnés de la démocratie, on doit à chaque fois porter effectivement ce discours pour que effectivement Ousmane Sonko participe parce que loolu mooy affairu u gentleman mooy affaire u gentleman bi ngay wax ah c'est-à-dire mooy am na décision yu ma jël mais du ma wutaat yeneen i pexe pour effectivement du ma wutaat yeneen pexe pour parce que en fait li ngeen wax ci article vingt 87 mooy da ngeen a njortoon ni effectivement du bon bokkatul nekkatul candidat mais mu ngi wut ay yeneeni pexe yi nga xamante ne ci lay bëgg a ngoy on l'a soupçonné et peut-être man affaire bu sax gëwuma ko mais pour man il faut que yi ay en termes de pacification et en termes de départ parce que euh, tàggoo dafay rafet. jëf day ma oui parce que man bu ma nekkee ganu buuba nduur mu recevoir ma. di ma servir ay daxin di ma servir ay ay domoda di ma servir ay coob muy neex di ànd ak man resto xam nga fekk temps yooyu uma jabar léeg-léeg mu may ma gel mais à la fin rek mu ne ma may finalement en fait maanaam li ngay wax nii da nga koy wax basé sur. non c'est du fait c'est du fait wala da ngay def ay da ngay da ngay da ngay wax. boobu yaa gën a xam que c'est du vécu. non non non non non non non. non Malal n'invente pas. non non non non non non pas gaawal déedéet dafa tudd sa tur yow nga xam ne ñeme woo sa waa kër bu ñu la tuddoon léegi nga rek la ba mu leer. baal naa la non li ngay wax nii da ngay wax nii wala wala tu bases ça sur ay ay faits wala dara. non non ah non. non non. dama ne su ma dama ne su ma doonoon. ah soo doonoon ah ok. <laughs> donc il est dans le conditionnel. Ah, mais si je comprends bien. mais der der wolof c'est du conditionnel quoi. mais der der xam nga pourquoi sa publicité bi ga yàgg sànq. Ah. Bouba ak. ak ak kii Badara. Ah. <laughs> non du nit ñi baaxuñu. <laughs> buuba Badara moo xalal yéen a ngi kii. loolee kii mu conclure waaye dafa loolu gis naa leen. gën a nekkaat moment bi tey xanaa xanaa tey. <laughs> jàpp leen si waay pour man pour man. Ah, pour man de pour man li des. la seule pièce. Ah. qui reste. pour puzzle bi. mët mët. mooy nañ ne oui effectivement Macky dina tànn kenn dans son parti. quelqu'un de bien fexe organiser fexe nit ñi topp ci ginnaaw ko bu loolu amul it oui que d'autres se signalent et puis commencé na ñeneen ñi bu ñu signalé on laisse hmm. mais la participation à mon avis de Ousmane Sonko dafay rafetal élection yi. daf koy nga loolu lay yekkal après tey mbokk man sa participation dafay rafetal élection yi. y a des gens parce que quand parce que quand le parti PASTEF est le parti est le nom du parti qui est le plus prononcé pendant ces dernières années. Yes. Et loolu aussi c'est par rapport au, à des actions très courageuses qu'ils ont posées sur le terrain et qui a et qui ont eu leur impact. Loolu c'est une réalité, il faut que ñu am sañ-sañu xool ko apprécier ko. Maintenant pour man gars yi même pour man même les opposants même ñoo gën a ragal Macky ñoo gën a ragal maki que Ousmane ñoo gën a ragal Ousmane Sonko que Macky en réalité c'est bon hein oui c'est ça c'est ça la réalité mais ça veut dire quoi nous sommes dans une combinaison politique qui fait que rien n'est impossible en réalité rien en politique c'est ça oui mais laissez-le parler